jërë ngeen jëf mbokku internet Vision Avenir TV mbégte contentement la ñu am saa di ne wat euh, di leen présenter seen émission rendez-vous politique comme niñ koy défé chaque semaine dañuy recevoir euh, ay kangam ci walu politique euh, donc waxtaan ak ñom ci li nga xamanteni mom moy li actualité politique mais moy aussi li nga xamanteni mom lañuy yëngu donc tay ñuy recevoir ki nga xamanteni mom moy Fatou Fatou Ndaw donc Fatou Bandaw nek membre bu mouvement li nga xamanteni mom moy dolel dooleel Macky takku liggéey Sénégal donc moom la recevoir ci suñu émission rendez-vous politique donc Fatou Bandaw ñu lay euh, remercier ci invitation bi di la wax dalal jàmm ci suñu émission rendez-vous politique merci monsieur Lopi mhm. maa ngi nuyu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatoullah maa ngi mhm. nuyu ñëpp mhm. waa di nuyu euh, waa Via TV di nuyu waa Rufisque Ouest nuyu waa Tëngéej yëpp waa diaspora bi képp ku nga xamante ne rek mi ngi fi mm-hmm. tey di ñu suivre si mm-hmm. télé Via TV mm-hmm. télé bi nga xamante vraiment une euh, euh, voie de développement la donc euh, dañ fi liggéey di jàppale jeunesse bi en même temps surtout si communication bi yooyu vraiment c'est important donc nous ngi leen di contaner bu baax a baax di sant di vraiment voilà di di la remercier TV di remercier ñëpp ñi nga xamanteni ñom ñoom ñoo département bu Rufisque di len wax nek la télé c'est pour les Rufisquois la mm-hmm. télé c'est pour les Sénégalais donc di ñaan ñi nga xamanteni ni ñoy sponsor yi nek dëkk Rufisque wala ñak dëkk Rufisque nek ay Sénégalais ñëw japp ci nga xamanteni mom moy la télévision de l'espoir division Avenir TV donc Fatou Ba euh, ndaw donc tay yow lañu dalal nga nek sunu ganu bés mm-hmm. donc euh, ñi waxtaan ci seen mouvement bi euh, nek mouvement de pour le président de la République Macky Sall. Mhm. de depuis kañ ngeen taxawal mouvement bi. waaw Donc, ñëwaat donc ñun suñu mouvement bi. Mhm. ñu ngi ko taxawal depuis le 1er janvier. 2019. Mhm. ci ko donc biñ ko aussi.

pour que mouvement bi dund ba mm-hmm. fiñu ñu tay ji mm-hmm. donc euh, voilà mon mu ngi def base am bi Cité euh, Taco. moy mm. base bi fa la Cité Taco. Arifis, mm-hmm. que vous connaissez bien. wa fi la def base bi wa ñun ñëpp vraiment té mouvement bi dafa ëmb ñu bari presque plus de 200 personnes ñu ngi nek ci mouvement bi. amna ay euh, ministres am ay directeurs. Mm, mm. mouvement bi kañ la taxaw mouvement euh, le 1er janvier 2019. le 1er janvier 2019 je suis taxawal mouvement le coordinateur Amadou. Uh-huh. Amadou Ndiol donc je uh-huh. suis le mouvement. wala bien c'est c'est bon Les personnes lay regroupé wu qui ko tabb ko def ko coordinateur wala mon moo wootee. Mon moo wootee euh, Amadou Ndiol. Mm-hmm. c'est un grand coordinateur eh, national international donc mon mot de l'initiative comme élection yi national le mouvement est national. ou départemental. départemental national même international. Donc ah, le donc mouvement bi donc nous nañu wax que du que c'est la mais le mouvement. et voilà est euh, vaste. un peu partout. Euh, vous avez des représentants partout. Ouais, dans voilà. Euh, hmm, Saint-Louis. Hmm. Ziguinchor un peu partout même en Afrique.

Bah, depuis le depuis le janvier 2019 nous taxawal li du mouvement euh, d'Olel Maki Sall. Mm-hmm. donc je pense bien que l'élection euh, élection présidentielle mm-hmm. euh, nous avons gunge ko voilà naka la bi 2019. élection 2019 mm-hmm. élection présidentielle je élection présidentielle si ne metti vraiment mais malgré tout nous nous mobiliser malgré nos maigres moyens. parvenir nañ taxaw ba lépp loo xamante ne war nañ ko def ci euh, élection yi defoon nañ ko euh, dajale suñu parrainage yëpp yëpp yëpp. Mm-hmm. jébal ko suñu euh, kii madame la ministre Mimi Touré. waaw mm-hmm. dajale nañ suñu parrainage yëpp. Mm-hmm. yóbbu nañ ko waaw. ok donc parrainage yi yéen yéen yéen a ci dox. ba jox ko ki nga xamante ni moom mooy madame Mimi Touré. waaw mu jox ngeen jébbal ko mu jox ñu audience ñu dem jébbal ko lépp vraiment waaw donc mu nekk liggéey boo c'était facile ou bien y avait des complications. non liggéey xam nga a affect politique moom bu la waxee politique c'est un peu. Euh, complexe dafa xaw metti mhm. parce que pour rek nga dem di convaincre nit ñi dafay metti il faut ngay def di naxante ak ñoom mhm. dugg ci population bi mhm. wàcc sur le terrain wala nit ñi di leen convaincre daal pour nga am leen mën a euh, am seeni parrainage et tout pour ñu mën a dem seen signature ak yooyu noonu noonu dafa demee woon mais yàlla dimbale ñu daal macha allah lépp c'était parfait macha c'était parfait après ça donc quel a été votre plan d'action qui après bon le président est réélu et a de bonnes plan d'action au niveau du département de Rufisque. Mm, plan d'action. lan ngeen def concrètement. non on a fait pas mal de choses. Hein. à part le parrainage. Ouais, on, et on voilà génn nañ. Mhm. dem nañ ci régions comme euh, Aïmbour, mhm. Thiès Kaolack def fa ay oh, def soit disant genre meeting genre meeting yooyu pour gën élargir suñu mouvement gën a massification massification bien yooyu. pour euh, voilà c'est ça def nañ loolu. dernièrement euh, après Kibi aussi après euh, nu de ça sax weeru koor bi bi passé paasee. Hmm. organiser na fi benn man ak mouvement bi comme man m'a chargé aussi organisation bi fii sama kër à Rufisque quartier Arafat 1 benn meeting bu mag ñu tuddee woon ko madame la ministre Mimi Touré. Euh, par eh, kii en ko marraine woon ko ko en même temps aussi mu ci Aly Ngouille Ndiaye xam nga ko xamante ne c'était le ministre de l'intérieur euh, liggéey lu bari si réew mi ak monsieur. kon seen mouvement bi si wàllu folklore la ëpp lu muy utiliser ci bu meeting ak folklore. non on a fait des aides aussi pas euh, pas mal de choses ah dem nañ dimbale di joxe ay dons. de médicaments sur le côté social. waaw social bi ku si am ay problème ñu ñëw.

bi ñu gisee madame la ministre Mimi Touré nag. Mhm. gisante ne parce que dafa xawoon na yàkkamti parce que temps boobu ñu ñu mu ñu woowoon ci période kii bi koor gi te foofu dafa xawoon guddi. Mhm. mais jël nañ suñu parrainage waxtaan nañ promettre nañu beaucoup de choses yoo nga xamante ne dinañ dimbale ci euh, financement ci DER bi pour que jigéen ñi mën a am ay GIE yu ñu mën a def ay liggéey. Mhm. en même temps les jeunes. ci wàllu entrepreneuria eh, entrepreneuria waa c' est ça entrepreneuria féminine. Mhm, jot ngeen ci def jéego. waa jot ngeen ci def jéego dimbali ngeen ci ay nit. waa waa dimbali nañ si ay nit quand même. ay femmes yi nga xamante ni ci seen côté. voilà euh, soxla nañ ñu mën a sukkaliku. pour mën a liggéey pour enrichir. voilà mën a entreprendre. voilà c' est ça pour parce que fii jigéen ñu bari léegi dañu entreprendre toogatuñu di xaar ay góor wala ñoom dañu nekk ay jàmbaar di liggéey. Mm. donc buñ leen appuyé rek dañuy dem ñoom. ñu yéen a ngi def ay ay séminaire dimbali gars des séminaires de formation ou ou depuis loolu wala amul. pour l'instant on n'a programmé même pas encore commencé guñ ko daal. voilà mais day ci ci ci ci seen. mu ngi ci suñu programme. Mm. waaw te incha allah. Mm. Mm. dinañ ko def à très bientôt. à très très bientôt. incha allah rabi. donc tey euh, tey ki nga xamante ni moom mooy euh, Amadou Ndiol Ndaw mm-hmm. donc moom euh, nekk le coordinateur. Euh, tey euh, ci élection yi parce que dinañ wax ci élection législative yi aussi hmm? ban liggéey bu concret ngeen jot a def aussi. Mhm. ak euh, voilà comment était été le bilan de votre travail. Mhm. pour élection législative yi. Hmm. donc ñun wàccoon nañ ci terrain bi di liggéey di massifier di waxtaan ak population bi. Mhm. waa jël seen signature et lépp àndandoo ak ñoom ci vote yi pour wax leen aussi nan lañuy voter voté nan nga wara def ak yépp donc ba régler lool à côté mais xam lan mooy ah, suñu problème. majeur vote des primo votants ngeen doon xamal ni ñuy voté. voilà suñu euh, ñi ñu àndal. les primo votants. voilà les ou bien les les gens qui ont déjà atteint la voilà ben âge surtout ça les gens qui n'ont pas encore qui ne comprennent pas comment voter. Mhm. nan nga wara def yoon bi nga wara a jaar yëpp. pour voter waaw ku si nekk da ngay am benn groupe boo xam ne ñoom ngay dem. àndandoo ñoom di leen gindi si loolu di waxtaan ak ñoom tu vois ba ñëpp seen euh, carte électeur réglé wu pour ñoom ñëpp jours yi ñu ñoom ñëpp ñi ñu àndaloon ñëpp dem nañu voté massivement te vraiment fépp fu ñu mën a nekk am nañ fa suñu kii vraiment sant nañu yalla dal Dolel Maki, mu melni ni que da ngeen a taxaw juste pour euh, voilà soutenir le président de la République ci réalisation yi nga xamante mo koy def. Euh, ba tax na ngeen taxawal le mouvement Dolel Maki. donc Dolel, ko. c'est juste pour sensibiliser les gens par rapport au projet wala ci a anam aussi ngeen koy gëna Dolel wa Dolel, c'est suñu président parce que am fi ay réalisation yu bari ñépp xam nañ ko kenn naataabaleetu ko comme terre bi fi gis nga amna terre bi réalisation tamit euh, il y a aussi euh, le l'EDER qui est là pour aider les femmes les jeunes ainsi de suite il y a aussi euh, euh, l'univers les universités qu'il a qui construit ici mhm. ñep xam nañ ko amna aussi yenen mbir yu mu defar fi yu bari tali yeeg infrastructure yi tali yeeg yëpp gis nga ko. kon mel na ni daal vraiment ak stade bi tey ñu tuddee euh, monsieur Abdoulaye Wade président arena bi yooyu yëpp grâce à lui moo tax euh, euh, ñu réaliser yooyu yëpp ñu xam ne président Macky il est ambitieux c'est un président qui est très travailleur qui travaille beaucoup et parle peu ñu ne nag xaaral ñu jóg ñun tamit. Et ko ak suñu moyen de bord jàppale ko si donc parce que duñ ne rek président président moo war a def lépp déedéet ñun tamit am nañ si part de responsabilité quand même population bi war na jóg même président buy def li ñun tam war nañ jóg seconde que am luñ si def aussi. Mhm. pour Sénégal jëm kanam. parce que ñun tamit Sénégal lañ bokk ñoom. kon yéen dans ce que le président de la République euh, fait doy na que tey gisoo leen j'ai fait, jafe boo xamante ni voilà soit ben faille ci côté am

peut-être bitim réew peut si si parce que day dem di uti ay yeneen financement ay partenaire partenaire pour ñu mm. financer ko pour yenn liggéey yi mu sumb te pareegul mu mën ko yeggale yaa ngi wax ci sa biir argument euh, DER bi ci réalisation yi nga xamante ni jot na ko def te pour pourtant mm. bon autant pour moi maa ngi ne DER euh, mm. TER bi

les léegi bu bu nawet bi fait que taw yi dafa c'est surtout euh, année bii moom gis nga euh, affaire dafa changé donc les les pluies sont très abondantes. donc bu fekkee yow da nga dëkk foo xamante ne foofu place ndox la ak tout moo waral bu tawee foog mu inondé aussi amener une ñuy fi def canalisation et tout pourtant prévoir voir yëpp ba def canalisation et yëpp. waaw ils sont passés les 750 milliards yi ñu def le plan décennal bi.

parce que xam nga nit matul te lépp looy def rek da nga naan maa ngi def li pour réussir ko mais parfois da ngay def dara do doo ko mën réussir yalla dogal lolu quand même moy ni mala wax rek dafa am zone yo xamantene il faut ñu gën ci exploité wu xool ko bu baax defaraat ko ba au moins mom parce que dëkk euh, inondation c'est partout dans le monde inondation moom dafa wër aduna kon da wara a mën daa continuer Sénégal. Hmm? ken wara ko mën éradiquer ah on peut bien on va essayer dañuy de dañuy dire parce que parce que moom loolu moom a ko nous on def le tout parce que am na léegi plan ORSEC bi ñu Fat Fat Fat Ba Ndaw dañuy waxante dëgg. waaw ça y est on a pris un budget de plus de 750 milliards. bien ñu octroyé ko à l'ONAS. juste pour le plan décennal bi nga xamante ni njiitum wax na ni bis bu le plus li nga inondation au Sénégal de fait avec son plan décennal et depuis lors chaque on uh-huh. constate les mêmes faits chaque jour ça euh, bu une uh-huh. inondation yi mel nii Italie donc c'est tout à fait très normal Il inondation am Sénégal du Sénégal c'est la le a am donc am na yeneen donc tu trouves que a une solution pour Mme éradiquer alors que le président de la République Mouatao, wax ni que sur le plan décennal le plus inondation Sénégal dina mais on est sur la route n'est-ce pas nous sommes sur la bi ñu ngi ci quand même. ça ne semble le plan ça ne semble pas ça parce qu'on dirait qu'à à chaque fois les choses ça grave vraiment ça a diminué ça a beaucoup diminué. ça a beaucoup diminué vraiment vraiment surtout cette année. et sur le côté d'air. Ah, sur le côté d'air parce qu'on on constate que c'est mhm. voilà on a débloqué c'est pas même plus euh, des milliards et des milliards yoo xamante on a dit que bon dañuy ciy jàppale les jeunes et que sur ce côté on dirait que khalis bobu nonou xawma ma yan ndaw la de wa est-ce que ndaw yoy ñu Sénégal ah bien sûr ndaw ya ngi Sénégal kañ on a financé des jeunes yéen ndaw ah ndaw Sénégal bi financé nañ len ah ñun de ñu Sénégalais ben Sénégalais bu taxaw fi ne ah ñun de DER moo ñu financé ah man de moom gis naa ñu bari ñu financé leen ñu financé si DER bi pour ñuy liggéey. ay sénégalais. bien sûr ay sénégalais kañ. xanaa ñoo ngi ne gisoo ko. man de gisoo non wax. xanaa ay lañ. pas apériste non non non non yow ñëpp lañ financé DER bi moom mi ngi dox ku ne gisoo DER hmm. financement bi ah kon yow je ne sais pas. il faut demander ah man de gisuma ban sénégalais moo ko gis. pourtant DER bi financé nañ gars yi dañuy commencé. gars yi wala. bàyyil apéristes ñepp lañ financer parce que Derby, c'est pas pour les apéristes seulement. hmm. ouais, financement pour tout pour. le mouvement de Macky. le le mouvement Dooleel Macky bien sûr ñu ngi ci ñun xam nga luy suñu. ñom gis nañ seen bop ci derby. ah ñu ngi ci parce que ñu ngi yor suñu financement ñu ngi ci donc te financement yoy wa DER ñoo leen ko jox. ñoo ñu ko jox bien sûr. Ah, looloo tax ma ne la waa APR la. non non non nañ jàll ci leneen parce que bu loolu waa APR tey du ngeen ci du ngeen bu ngeen nekkoon way waa Yewwi wala ñeneen ak ñeneen je ne pense que di ngeen ci jot. Ah, bul wax loolu bul wax loolu donc léegi tey euh, donc ngeen ànd ak le président de la république. Mm-hmm. depuis 2019 ngeen koy jàppale. Mm-hmm. et que tey moom liggéey bi ngeen nekk di ko liggéeyal di ko jàppale. di ko dooleel. Mm-hmm. ba xam moom euh, mu ngi koy yëg. ndax ndaxam pas si ci voilà très bien une bonne question donc ñun depuis que nous liggéey si pour appeler le président. Hmm. suñu panel il y a des ministres qui ci intégré euh, comme le comme ban ministre la moo intégré. Euh, comme le monsieur le ministre monsieur Aliou Ngouille hmm. oui bien sûr D'autres ministres que je ne peux citer il y a aussi la le ministre euh, Amadou Hote. D'autres ministres, on a tout récemment allé chez lui Qui? une audience euh, à, je ne sais pas, Bandek, alors, Yembel, si qui aime siège en Bob. ouais, le centre Amrohot. Oui, Centre Amadou ouais. Oui, centre Amadou. Ouais, demande mon fois, ministre qui aussi, euh, ministre Boudjigène, Bidek Fiwai, massa. Assom. Assom Diata. jëloon nañu audience. Mhm. temps yi passé tout récemment yàggul si euh, kiyam bi appareil bi appareil bi nekk foofu. Mhm. jëloon ñu audience ñu waxtaan ak moom dox ko ci ñuy doléance yëpp parce que ñun suñu but mooy lan ñu jàkkaar mais ministre yi yëg nañ liggéey bi ngeen nekk di liggéey. waaye est-ce que président de la non non ministre bi ministre yi yëg nañ est-ce que président yëg na liggéey bi ngeen di liggéeyal président euh, euh, loolu mooy wax ji nag président yëguñu parce que depuis loolu ñu ngi wut audience pour euh, le monsieur l'excellence monsieur le président kii ñu pale pour mu recevoir ñu. monsieur le président recevoir len pale wa loolu la ñuy wër. tay bu ngeen fexé ba tay boobu ba ngeen ak euh, euh, madame Mimi Touré. Mhm. jébbal ko ay parrainage yi nga xamante yeen le mouvement dooleel Macky moko ko liggéeyal. Mhm. liggéey ci liggéey boo am solo. Mhm. ngeen gisanteeg aussi le ministre Amadou Hott. depuis yembal ngeen dem Kër Massar gisanteeg le ministre. Euh, Assane Diata donc je pense tay le président de la république war na mën a

jàkkaarloog le concerné mooy monsieur le président mais duñ ko def da ngay wax duñ def nañ le tout suñu démarche suñu ligue lepp élection yi def nañ ni ci war lu nekk def nañ ko rien que rek pour ñun ñu jàkkaarloog monsieur le président. est-ce que ñooñu nekk est-ce que ministre le coordinateur Amadou ndior a tout fait. est-ce que nekkuñu di ligue sen do manam di liggéey maanaam tey jii lepp lu ngeen ligue c'est comme si que ñom ñoko ko ñoko ñoo melni ñu. alors que yéen yéen a ci terrain bi. di liggéey waaw ñoo nekk ci terrain bi. di liggéey di jànkonteel ay coono mouvement bi dafa am euh, si

Amadou dafa sonu ci euh, euh, mouvement bi lepp luñu am dañ ko ci def xaruñ ci kenn muy ministre bu ñu jox wal ñun suñu propre moyen la ñu kon da ngeen wara mëna am sen récompense. dañoo wara mëna am suñu récompense parce que. on a le droit ndax liggéey nag nit ji ci sawar. Mhm. mu am ci mu am ci récompense. surtout surtout surtout lool mo gëna a. tax tamit ngeen bëgg tamit le président de la république recevoir leen. ku ku mu recevoir ñu parce que ñun tam dañoo bokku ci ci famille ci famille bi. voilà dañu bok ci fam ñi nek ci mom sës si moom rek li def gënuñu liggéey ak pourtant. da ngeen a ci famille bi ñom dañu gën a sës si rek. mais ñun li ñuy liggéey ñom ñoom liggéeyuñu sax genn wàll. base bi yéen la base bi ñun la parce que dañuy dugg ci le terrain waa def lu ñu wara def di xeex di fighting di mobiliser les gens bien sûr di mobiliser la population. donc président di wax ak ñom président ah, war na mëna a jàpp même di jël suñu moyens di leen jox sax pour pour motiver leen. wa té té président ah. war na ko mën a bien sûr président ndax liggéey bi ngeen di liggéey aussi je pense rien que. c'est pour le président de la république. et que nit ñi tamit buñ la nekkalé ci ah. ci naaj bi nga nekkal leen ci ker. nga nekkal leen ci ker bien sûr. Mhm, mhm. c'est c'est c'est tout à fait normal. Mhm. li nga wax lool yëpp moy dëgg nak ñun daal lépp luy suñu ñaxtu tay jii

ah war ngeen góorgóorlu ngeen am récépissé mouvement bu toll noonu te amul récépissé ngeen gisante ak ay ministre dimbali yu ñu leen ba ngeen am ay récépissé loolu tamit vraiment. Hmm? incha allah war na mën a même bu ngeen gisante ak le hmm. président de la république war na mën a nekk seen doléance. bien sûr comme ça ngeen am récépissé. surtout hmm. surtout surtout. allah loolu daal la ñuy ñaan di ko mbébéte depuis fort longtemps ñu ngi ci. wax nañu ministre yeeg euh, député yi ñu nekkal ku nekk daal mais ba léegi nag. mënuñ parvenir li ñu bëgg am. dooleel Macky moom ànd naag troisième mandat. dooleel Macky bien sûr ànd dañ Nak, troisième mandat bien sûr yow kañ gisoo Qui est le président du Sénégal ah, ah. président beaucoup ak yeneen président yi de. man de te dañuy ji xoolal coupe d'Afrique. bi mu ñëw nga coupe d'Afrique. Afrique bi. da nga maa laaj wala man de doo <laughs> ah bien sûr bourse familiale derby bi. waaw ah, stade euh, Abdoulaye Wade. Hmm. beaucoup d'autres choses hein? non monsieur monsieur monsieur Macky Sall moom vraiment il est un innovateur hein? dañ ko war saluer gën ko jàppale ah taxaw ko malgré am na ay tuuti faay am na ay faay parce que bien sûr euh, maanaam li nga xamante ni d'ailleurs sax bon xam nga yaa wax inondation yi ñu ngi ci doon wax yi ngi doon wax ci inondation yi xolal euh, euh, bu ñu wax ci bilan bi parce que aussi li nga xamanteni da koy doga créer ya wax innovation euh aéroport international bu bu bu Saint-Louis bi inondé ba ken xàmmeetu lolu mom tu vois aéroport dama fàtte woon sax aéroport. mais aéroport international waaw mais Bobu non wax ma juste jas bi non jas bi moom da ngeen koy parce que c'est le président de la république euh, monsieur Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade moo ko moo ko c'est pas un bilan de de de Macky Sall. ok c'est bon c'est bon moo ko terminé mais bu bu bu Saint-Louis bi laay wax. waaw bu Saint-Louis bi loo ci wax. inondé na déjà été bon kañ lañ ko inauguré boo fa demee ndox kese la. waaw léegi yow nga ne ñun ñoo ñun ñoo tax mu mel mu inondé. waaw ah. déggoo ma la wax. Euh, euh, avec qui nous traitons tuddati changement climatique bi kenn. yéen daal bu ngeen demee euh, gis bu ngeen fexé ba gisanteeg le président de la république wax leen ak mom les réalités des sénégalais sénégalais yi ñu ngi souffrir. bien sûr aussi il est temps aussi. Mm-hmm. moom en tant que bu féké bëgg ngeen ko te ngeen koy dooleel que mu changer aussi manam dundinu sénégalais yi. ndaxte loolu lañuy xaar ci mom wa surtout ça. sénégalais les sénégalais souffrent beaucoup donc je pense que tay doléance bobu war ngeen ko meuna a yóbbaale de. bañ na bu fekké né le président de la république recevoir na len bu ñu recevoir moom mom inshallah té loolu lañuy est-ce que di ngeen ko wax sax. té loolu lañ bëgg di ngeen fa nek sax diko tag Não, moom moom gaa dinañ ko wax li mu def vraiment mais a suñu sañoon nga yokk améliorer lii ak lii loolu dinañ ko ko wax bien que ça nous concerne ñun ñëpp loolu faat ba loolu dina ci baax dina ci baax trop Mas, <laughs> liggéey moom ñuy l'essentiel euh, mm-hmm. kii produit surtout nag li euh, mm-hmm. ñuy dem di exporter ailleurs yooyu moom mm-hmm. vraiment bëggoon naa si ñaaxaat ko si aussi ñu gën di exploiter ressources yi am très important Sénégal parce que ñun am nañ am nañ am donc

parfois aussi partage bi moy inégal. Mhm. pour ñu eh, partage équitable bi mo mo nekkul. loolu aussi té en plus ñi nga xamante ne les milliardaires ak yoy tout le temps ñom ñoo ci gëna bénéficier woo. Mhm. ñom tout le temps ñu ngi dem di di jënti ay euh, ay affaire ñeu indi indiwaat ko fi mu gëna cher bu ñu ko jaay ñun la duñ si.

waaw avec l'arrivée du président de la république yoo xamante c'est des entreprises nationales. ay nit ay sénégalais créé ko ñu ñëw tëj ko. mais est-ce que loolu bokk na ci luy motiver maanaam entrepreneuriat au Sénégal. non mais loolu après ñun dañ si dañ parce que euh, bàyyiwu leen noonu rek ah, pour nous ñu toog taxawaal duñu am liggéey non il faut ab da leen placer feneen ñu pour mën a continuer kii yam parce que loolu bu ko defee aussi day yàq liggéeyam te loolu mm. duñ ko seetaan sax. Mm. duñ ko seetaan non non. du ngeen ko seetaan. non non bu ko defee. Hein? ngeen bàyyi ko wala da ngeen di akkoon ne ànd ak moom. bàyyi non je je sais que du ko def du ko def président du ko def. parce que lu jëmale réew mi kanam si lay dox kon du ko def. dama ne bu ko defoon. je ne pense pas da ngeen di continuer ànd ak moom wala da ngeen koy bàyyi loolu moom waxam jotagul. waxam jotagul. non doo ci mën prononcer. non si mën prononcer. Hmm. ok kon baax na léegi comme que ci prononcer on va passer à ça <laughs> donc donc nous allons parler de tey audience bi bëgg ngeen ko mhm. amul mhm. bloqué amna na ñoo xamante ni ministre yi nga xamanteni jot ngeen gisante ak ñom ñom na ils pas passé le message comme il faut ba le président de la république mën leen wo mën leen recevoir au niveau du du palais donc euh élection législative législatives yi jàll na a ngi réclamer sen une euh, doléance mais à part doléance bi ban plan d'action ngeen am à part doléance pour le président de la république waaw ban plan d'action ngeen am ci mouvement bi euh, dañu bëgg euh, ci mouvement bi à part euh, président recevoir ñu ñun ci suñu bi parce que mouvement bi dafa bëri ay jeunes bëri ay femmes donc ñu gën ñu financer utal euh, jeunes yi nekk ci mouvement bi ay emploi ñu liggéey parce que am na ñoo xamante ne am nañ ay master am nañ licence ñii am ay doctorat. mais waxoo fi sànq que am ngeen financement bu deer bien sûr am nañ mais dañu bëgg mu yokk mu dolli loolu du doy nu muy doolee ñeneen amuñu. bu doolee parce que jeunes yi nekk si kii dafa bëri tellement. wala moom daal daal waa c'est dans toutes les régions. voilà moom daal daa war a financer juste wa, voilà. non ñi tout le monde qui se trouve ici. ñoo bok ci mouvement. non non si ñep si ñep Sénégal ñep jeunes yi fi nekk Sénégal femmes sénégalaises yëpp ñu ñu financer leen loolu la wax waxuma mu def ko à côté comme comme ñun APR rek dañ def APR non non. Mm. wala mouvement parce que non mais dañ koy élargir yëpp taska pour ñëpp jot ci parce que c'est pour le Sénégal. mouvement bi amul yenen banen feuille de route. juste pour seulement. Euh, voilà donc tay mm-hmm. yaa ngi wax ci financement. Mm-hmm. wax ci est-ce que wax nga ci formation d'abord parce que tamit nit bala nga koy financer faut nga former ko. Mm-hmm. mais nit doo ko financer té amul formation bi war ba xam xalaat ngeen ci formation.

y une formation comme genre ban genre. formation vous faites def ngeen ban genre ngeen jot a def. je te pose la je t'ai posé la non non non comme que né nga def formation ban genre formation vous avez a def. ah def avez ay transformation ay fruits et légumes transformation fruits et légumes. Vous avez formé ci ay nit. ay femme, bien sûr ay femme mhm. mm. même ay des jeunes waaw. bah ba ñu mën.

très bien ñoo ko initié kañ ñoo ko initié de. ah loolu boo ko defee loolu moom c'est une bonne chose loolu la ñuy xaar ci mouvement aussi parce que tamit euh, di euh, dooleel le président de la république te defoo loo xamante ni aussi. Euh, def ay formation vente en ligne yëpp. pour au cas boo amee sa mat mat yooyu noonu ñu formé wu ba defar ko. xam nga boo defee sa formation vente en ligne bi si après si ngay mën dem di ko jaayee mi fi nga toog sur place buñ la commandé da ngay ñëw rek tout ça si téléphone nga koy defee ñu commandé tel ni nga bëgg tel. yëpp après yow da ngay ñëw rek kii yooyu yëpp ñu ngi koy def. voilà loolu la ñuy xaar ci mouvement euh, bravo loolu moom bu ngeen ko defee ngeen def loo xamante ni moom la sénégalais yi bëgg parce que loolu mooy développement réew mhm. parce que tey ndaw mënta réclamer financement te amul formation balaa ngay réclamer tey for parce que tey bu fekkee ne si pas formé Mhm. on te donne de l'argent donc mhm. tu gaspiller après tu reviens à zéro mhm, donc bu fekkee ni formé nañ la ba nga am dans ce cas là tu as la di nga n'est-ce pas donc côté de euh, bravo donc vous faites ni y former les gens sur ce côté c'est très bien bien sûr voilà président a président le bug waaw parce que loolu yëpp. mais développement la bokk il faut entreprendre. il faut savoir entreprendre. voilà donc et le président de la république. Mm-hmm. aussi war ci gëna japp bu féké ni yéen a ngi def. ak nonu mel ñu ngi def ay activités war ci mëna japp ngeen dimbali aussi ndaw ñi ndaxte ndaw ñoñu ëlëk ñom ñoy euh, ñoom ñooy espoiru réew mi té ñoom it ñoom fal njitum réew té le président de la république ndaw ñi moo tax mu tok fofu nonu bu ndaw ñi tay du nekk le président de la république bi mu nekk tay et je pense que il est temps aussi tay mu recevoir leen ndaxte liguey bi nga xamanteni yene yéen ngi koy def te mu nek lo xamanteni ni da fay jëmele kanam les sénégalais da fay jëmele kanam Sénégal il est temps que aussi le président de la république mu nekk euh, doléance boo xamante ni aussi je la lance pour dimbali len aussi le président japp ci recevoir len ndax ngeen gëna mëna jappalé a ndaw ñi aussi ci walu formation du ama am solo la. donc tay euh yow. Mm-hmm. lan ngay tejé parce que nous arrivons au terme de notre euh, émission. Mm-hmm. lan ngay tejé je remercie remercier invitation bi. Mhm. vraiment ça m'a fait plaisir. Mhm. et c'est la première fois que je suis invitée. Mhm. dans une télé. comme Via TV vraiment. Euh, télé la. a ko suivre ci euh, internet bi koy suivre. vraiment c'est intéressant. donc euh, di kontaanaat rek di gën a euh, woowaat population bi yépp ñu gëna a àndandoo ñu ñëw jàppale suñu euh, président monsieur Macky Sall. Mm-hmm. parce que ñoom ñëpp gis nañ liggéey bi mu fi def. Mm-hmm. depuis diir bi mu fi toogee ak léegi rek macha allah innovation yooyu yëpp te moom lépp lu muy def du ci boole ay wax ju bari. Mm-hmm. waaw xoolal wax tuuti liggéey lu bari. te loolu lañ soxla ñun. ñun nous sommes des jeunes jeunes yi loolu lañ bëgg. mu ngi entreprendre mu ngi ubbi ay kii société pour les jeunes. ñu ngi DER baa ngi fii pour jigéen ñi. Euh, bourse familiale bi di aider <laughs> euh, ah. mooy non dal man vraiment appel monsieur président de la république nañu wo pale ñu ñëw jakarlo wax ko suñu doléance wax ko lan la améliorer euh, pour Sénégal jëm kanam ñi les frustrés ñëpp ñëwaat à côté parce que Sénégal Sénégal ñëpp Sénégal kon mm-hmm. waruñ nek fi di nga di nañ nek bloc jappalé suñu président parce que c'est un innovateur mm-hmm. on peut dire ñëpp gis nañ ñu fi def euh, di contane bu baax baax si surtout ñuy suivre tay mm-hmm. bay seen tok jaakar Via TV euh télé bu machallah bi ah contane na ci dal ça fait plaisir De la sainte euh, monsieur Lopi

bëgg a dem jàkkaarloo président gisagu ko mais lépp lu mu mën a def rek pour mouvement bi jëm kanam ñëpp gën ko kii rek wii mu ngi koy def sonn na lool nag président daal li lay ñaan ah recevoir ñu daal sonn nañ trop te bëgg nañ jàkkaarloo yow ok wasalaam. merci wasalaam di la remercier bu baax a baax. canta ngërëm la donc euh, je pense que le président de la république dina dég doléance bi nga xamante ni moom ngeen am yeen wa mouvement dooleel euh, euh takku liggéey Sénégal takku liggéey Sénégal nag buñ ko waxé loolu yëpp ci développement la bokk donc yéen ngeen koy def di former les jeunes ci wàllu entrepreneuriat ñi ciy nekk donc ñu soxla aussi financement ñeneen ñi financé ngi leen ñeneen ñi des na donc je pense que tamit euh, le président de la république war na mën a gën a jàpp ci seen liggéey euh, avec aussi le coordinateur Amadou Ndiol Ndaw ñu koy saluer de passage di remercier waa mouvement bi yëpp ah, ci liggéey bi nga xamante ni yéen a koy def donc euh, di leen jaajëfal bu baax a baax donc euh, mbok internet Vision Avenir TV c'est tout pour aujourd'hui Taï dañ doon recevoir ki nga xamanteni ni moy Fatou bandaw nek membre bu mouvement dolel Maki, taku liguey Sénégal mom lañu recevoir on suñu plateau rendez-vous politique donc doon waxtaan ak Mom, ci li nga xamanteni ni moy mouvement bi nga xamanteni ni lañu le président de la République naka la juddoo naka lañ demee naka lañ liggéeyee bilan beeg lépp li nga xamante ni le mouvement mu ngi koy def ñu ngi koy waxtaanee ak en tout cas ak moom donc le coordinateur aussi bi nga xamante ni moom mooy amadou ndiol euh, ndaw donc def ko ànd ci ak euh, vraiment les sénégalais d' et de de l' donc euh, di leen jox dig daje. très prochainement mais là, loolu di remercier ki nga xamanteni mom moy sunu cadreur donc nek sunu réalisateur di Djibril Thiandoum le jinne des caméramans et des réalisateurs au niveau de VA TV donc di vous jox dig dajé benen yoon ak benen invité inshallah allah d'ici là portez-vous bien et restez fidèles à nos chaînes de programme jaa